juróom benn fukk ak ñett doom ju sell ji asalaamaaleykum mbokki déglukat yi mu ngi leen di nuyu ci turu yàlla borom jàmm ji bëgg ñépp dégg te nangu yoonu njub bi mu tëral ngir am jàmm ju wér ak moom ba faaw am nanu mbégte ci li nu mën a dellu si tey ngir dégtal leen seen émission yoonu njub ci sunu gëstu bi weesu ci linjil bu sell bi gisoon nanu ni yéesu almasi bi juddoo woon kenn mësula juddoo ni moom ci janq la juddoo ci kàttanu yàlla ci dëkku betleyem ni ko yonent yàlla yi yëgle woon tembe looloo taxoon ci guddu gi mu juddu yàlla yónne ay malaakaam ca sàmm yu daan fanaan ca tool ya wër betleyem ñu ne leen bu leen tiit ndaxte dama leen di indil xibaar bu baax buy indi mbég mu rëy ci nit ñépp tey ji ca dëkku daawuda ab musalkat juddul na leen fa te mooy almasi bi di borom bi tey nag danu fas yéene gëstu ci ni yéesu meloon bi mu nekkee xale ak bi mu màggee téereb linjil dafa nuy won ne gannaaw jurug yéesu maryaama ak yuusufa amoon nañu ñeenti doom yu góor ak ay doom yu jigéen noonu foofu ci dëkku nasaret xale ba yeesoo nga doon màggandoo ak i rakkam ci kër gu xat ni ngeen ko xame yuusufa jurul woon yéesu waaye ci bëti nit ñi yeesu doomu yuusufa la woon te ndegam yuusufa minise la woon yéesu moom itam doon na def liggéeyu minise diirub at yi mu dëkk ci kër ga naka noonu yéesu tàmmoon na liggéey ak ñaq noonu bind nañu ci linjil ne yeesoo ngi doon màgg ci jëmm te yokk ci xam-xam te neex yàlla ak nit ñi ni xale yépp yéesu dafa daan lekk di nelaw di foo te di jàng wante amoon na lenn lu mu wuutee ak yeneen xale yi ndax xam ngeen loolu lu mu doon mooy lii yéesu mënula def bàkkaar jenn waxu njublan mësula génn ci gémmiñam mësula soxla wax kenn baal ma àq ndaxte mësula tooñ kenn mënula def baakaar ndaxte baakaar amul woon ci moom jikko ju sell amoon lu bon àndul ak moon li neex yàlla rekk la daan def yoroon na sunu jëmm waaye yorul woon sunu jikko ju bon moom la mbind mi wax bi mu naan sëriñ bu mag bi nu am di yéesu du ku mënula bokk ak nun sunuy naqar moom sax far jaar na ci nattu ni nun ci bépp na waaye deful bàkkaar kon bi yeesu amee lu wara tollu ci fanweeri at waxtu wu mu wara tàmbali liggéeyam ni musalkatu àddina si di jot am bés nag mu tàggoo ak waa këram jóge dëkku nasaret jublu dexu yordaan fa yonent yàlla yaxya doon waare te doon fa sóob nit ñi ci ndox ndax fàttaliku ngeen Yaxya euh, mi mage yeesu juróom benn weer gisoon nanu ba noppi ne Yaxya moo doon yonent bi yàlla yónni ngir waajal xoli nit ñi ngir ñu tuub seeni bàkkaar te teeru almasi bi leen yàlla yónnee déglu leen li ñu bind ci linjiil ci mbirum yonent yàlla yax ya ak ni mu doon xàlle yoonu almasi bi ci linjiilu Màcca saar ñett mbind mi nee na ca jamono jooja yaxya feeñoon na di waare ca màndingu yude nii la doon waare tuub leen seeni bàkkaar ndaxte nguur yàlla aji kawe ji jege na yaxya mooy ki ñu doon wax jaarale ko cib yonent yonent yàlla esayi bi mu naan am na baat buy xaacu ca mànding ma ne xale leen yoonu borom bi jubal leen fi muy jaar yaxya nag mu ngi soloon mbubb mu ñu ràbbe kawaru giléem takk geñoog der ci ndigam ay njéeréer la daan dunde ak lem noonu ñépp génn jëm ci moom ñu dëkk yerusalem ak diwaanu yude ak waa dexu yordaan ñu nangu seeni bàkkaar yax ya sóob leen ca dexu yordaan nanu taxaw fi tuuti ngir xalaat ci li nuy jàng ndax dégg ngeen yax ya ci tënk nii la ya doon waare tuub leen seeni bàkkaar dëddu leen seen jëf yu bon yi te waaja daje ak almasi bu sell bi jóge asamaan naka noonu ñi nangu seeni bàkkaar fa kanam yàlla yaxya sóob leen ci ndoxum dex gi soobe ci ndox mënul woon a raxas seeni bàkkaar màndarga rekk la woon muy wone ne ñooñu tuub nañu seeni bàkkaar ba jekk ngir nangu almasi bi ni seen musalkat ci biir ñi wuyu si woon yaxya nag ngir ñu soob leen ci ndox amoon na ci ñu bokkoon ci ñaari tarixa yi gën a siiw ci yawut ya ñaari tarixa yooyu ñoo doon sadusen yi ak fariseen yi ñoom ñi ñuy wax sadusen yi ñooy ña gënoon a am alal ca yawut ya te am doole ca nguurug rom waaye ci seen biir xol faalewuñu mbindi yonent yi ci lu jëm ci tarixab farisiyen yi nag ñoom ay boroom diine lañu woon te farlu lool ci ñaan yàlla di woor di génne asaka waaye seen màggal amul woon benn njëriñ ndaxte dañu doon fexe jub fa kanam yàlla ci seen pexey bopp te it farisiyen yi dañu jaxase woon seen aada ak kàddug yàlla gi dëgg gi ba seenug jaamu yàlla mujj nekk ngistal rekk te làmboo xeebeel ci ñu bokkul ci ñoom ci tënk farisiyen yi ak sadduseen yi dañu doon teral yàlla ci seen gémmiñ waaye seen xol sore woon na ko lool léegi nag nanu jëm kanam ci saar wi ba déglu ni yaxle ya yedde woon boroom diine yooyu ndax seenug naafiq mbind mi nee na noonu ay pharisien ak ay sadduseen yu bare ñëw ci ya ngir mu soob leen ñoom itam ci dex ga waaye bi leen ya gisee mu ne leen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 waaye Yaxya gàntu ko ne man maa soxla nga sóob ma ci dox te yaa ngi ñëw ci man yéesu tontu ko ne bàyyil noonu ndaxte war na noo mottali lépp lu jub noonu Yaxya nangu noonu la Yaxya sóobe woon borom bi yéesu ci dexu Yordaan xëy na am na kuy laaj lu tax yéesu mi amul woon baakaar ñaan Yaxya mu sóob ko ci ndox waaw ci lu wóor borom bi yéesu soxlawul woon réccu ci dara ndaxte mësula def baakaar lu taxoon nag yéesu ñëw ci yax ya mu soob ko ci ndox ni mu daan soobe baakaarkat yi ci ndox lan la yéesu waxoon ci loolu yéesu dafa ne woon ya bàyyil noonu ndaxte war na nanoo mottali lépp lu jub bi ñu koy soob ci ndox nag yéesu dafa doon teg fi sunu kanam royukaay te di won nit ñi ni mu ñëwee ngir dund niki nun te ngir nun léegi nag ci mujjug saar wi mbind mi nee bi ko yaxya soobee ca dex ga yéesu génn ca saasa asamaan yi daldi ubbeeku te yax ya gis xelum yàlla wàcc ci melow petax ñëw ci kaw yeesu te baat bu jóge asamaan dëktu ne kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa ame bànneex amin mbokk yi ndax dégg ngeen libaat bi jolle asamaan waxoon baatu kan la woon waaw moo doon baatu yàlla aji sax ji wax ne kii maanaam yéesu mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa ame bànneex jàngoon nanu ba noppi ci mbind mu sel mi ni yonent yàlla daawuda ak malaaka yàlla jibril wooye almasi bi doomu yàlla te léegi dégg nanu ni ko yàlla moom ci boppam woowe sama doom ji ma bëgg lu taxoon yàlla woowe yeesu doomam gisoon nanu ba noppi ne tur woowu tekkiwul ne yàlla jur na yeesu ci maryaama loolu aram na kon lan la yàlla bëggoon a wax foofu yàlla dafa tudde yeesu doomam ngir ràññale ko ak ñeneen ñépp naka la yeesu wuute ak doomi aadama nii la wuute ak ñoom ñépp ñi soqi ko ci aadama am nañu jikko ju taq bàkkaar waaye du noonu ak yéesu almasi bi moom amul woon benn bàkkaar ndaxte ci xelum yàlla mu sel mi la jóge ni nu ko gise sànq almasi bi yoroon na sunu jëmm waaye yorul woon sunu jikko ju bon jikko ju sell te mat sëkk la amoon looloo taxoon yàlla aji sell ji mën a am bànneex ci moom ni bàyyi di ame bànneex ci bàjjo dañuy wax ne doom ji mooy takkandeeru baay bi ku gis doom xam nu baayam mel naka noonu itam ku xam yéesu xam nu yàlla mel ndaxte yéesu mooy ki bawoo ci yàlla ngir feeñal jikkoom kenn mësula gis yàlla waaye almasi bi moo ko xamle yéesu moom kenn amoon jikko ju sell ndaxte moom kenn bawoo ci xelum yàlla mu sell mi looloo taxoon yàlla rusul jollil baatam ci asamaan ne kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa amee bànneex léegi ci jot gi nu dese tey danu bëgg a jàng tuuti ci saar ñeent ba dégg li xewoon gannaaw ba Yaxya soobee yéesu ci ndox te baatu yàlla dégtu ci asamaan xamle ne Yeesu mooy doomam ju sell ji mu bëgg mbind mi nee na bi loolu amee xelum yàlla yóbbu yéesu ca màndig ma ngir mu jànkonte ak fiiri seytaane yeesu nekk fa te lekkul ñeent fukki bëccëg ak ñen fukki guddi doora xiif noonu fiirkat bi di seytaane ñëw ci moom ne ko boo dee doomu yàlla santal doj yi ñu nekk mburu waaye yeesu tontu ko ne mbind mi neena nit du dunde mburu rekk waaye itam gépp kàddu gu génne ci gémmiñuk yàlla mbokk yi amunu jotu jàng lépp ci ni seytaane doon fiire yeesu ngir mu déggal ko di def bàkkaar waaye li ngeen war a xam te fàttaliku ko mooy lii seytaane fiiroon na aadama ak awa ca toolu àjjana ngir ñu def bàkkaar noonu itam la seytaane doon fexe fiir yeesu ca màndig ma ngir mu def bàkkaar lu taxoon iblis doon fexe fiir yeesu ndaxte xamoon na bu baax ne yeesu mooy ramukat bu sel bi gane ci àddina ngir musal doomi aadama ci nootaangeem te seytaane xamoon na ne su yéesu defee benn bàkkaar rekk du mën a musal doomi aadama ci nootaangeeg bàkkaar noonu mbind mi day nettali ni seytaane songe yéesu ay yooni yoon di ko jéem a nax wante yeesu tàbbiwul ci fiir iblis waaw ci lu wér seytaane daanoon na sunuy maam aadama awa waaye mënul woon a daan borom bi yeesu ndaxte yéesu mooy doom ju sell ji yàlla wàcce ci àddina ngir musal doomu aadama yi ci doole iblis yeesu musula def mënul a def bàkkaar sax ndax ndaxte jikko ju sel la judduwaale looloo tax mbind mi ne kon nag yéesu mooy sëriñ bu mag bi nu soxlo dafa sell du def lu bon du taq bàkkaar bokkul dara ak bàkkaarkat yi te yéege nañu ko fa yàlla niroowul ak yeneen sëriñ yu mag yi soxlawul di def bés bu set ay saraxi mala ngir bàkkaari boppam jëkk teg ca yooyu mbooloo mi yéesu def na sarax benn yoon ba faawo ngir dindi bàkkaar yi bi muy joxe bakkanam kon mbokk yi nu ngi leen di gërëm ci déglu bi te fas yéene tasewaat ak yéen njàng mi ñëw ngir déglu li yonent yàlla ya seede ci mbirum almasi bi te gis ñi jëkk a doon ay taalibeem waaye su ngeen amee ay laaj ci li nu jàng tey bind leen ñu ci yoonu njub boîte postale 370 Saint-Louis yoonu njub BP 370 Saint-Louis yàlla na leen yàlla leeral ci lépp li nu jàng tey te ngeen xalaat bu baax ci li mbind mi wax bi mu naan Yeesu Kirist feeñ na ngir dindi bàkkaar yi te moom amul benn bàkkaar